koo aaye ne kenn waru caa sangu waaye xale yi nga xam ne duñu def dara ci vacances yi ak tàngaay bu metti bi dañuy dal di dugg ci géej gi duñu faale tere bi nga xam ne préfet tere na ko ñu sangu ci yooyu le géej te loolee dafay indi ay lapp yu bari jiitub association bi ëmb maître nageur surveillant des baignades fii ci Sénégal di joxe ana lan moo waral yooyu le ndaw di xëtt yooyu la tere. plage yi ñu doon woowee plage autorisée à la baignade soo koy compter du mat juróom léegi nag plage amatul parce que plage yu bëri yoo xam ne dañ ko autorisé woon dañ ko privatiser voilà privatisation boobu nag moom moo poussé les gens à fréquenter les plages dites interdites à la baignade bu ko defee nag ñoo loolu noonu suñ fa demee nag fekk plage yooyu suñ fa demee fekk ñu fa kenn rek je pense que ñoom dañ ah, lapp mën na fa am. mbir mi nag moom mi xelam màcc ci wàll wi jàpp na responsabilité yi loxo yi ku ne nga ca. parent yi am nañ ci part xale yi nga xam ne ñoom ñoo dem ci plage am nañ ci part de responsabilité même les autorités sax am nañ ci part de responsabilité mais bi may bi may gën a euh, kii mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñoo dem ci plage yi nañuy dem ci plage yi nga xam ne dañ ko autorisé di ko surveiller du matin au soir je pense que boo demee boo demee ci plage boo xam ne daal amul benn surveillance je pense que tu es exposé à des dangers de noyade. lu ñeel wàllu kaaraange ak gën a ñoŋal plage yi. mairie bu ndakaaru dafa dal di yóbbu ay maître nageur ci ñaar fukk ak juróom benn plage yi nekk fii ci ndakaaru ci ndimbalu brigade des sapeurs pompiers boobu le dispositif nag jamono ji amagul ca banlieue bi moo tax njiitub maître nageur yu senegal yi di sàkku ci yeneen maire yi nga xam ne tamit am nañu géej ñu mën a sangoo ñu dal di fexe ñoom itam teg benn dispositif ngir kaaraange askan bi